aajo yi it mu defanteeg ñun noonu ginnaaw bu nu demee biir suuf it yal na yaal sunu bàmmeel ba mu yaal bàmmeel xat na torop lëndëm na lool ñàng na raklu da ndeysaan amul gunge amul wéttal moom bu ñaar deewandoo woon sax nit ñi dañuy bañ duñ leen boole bàmmeel ku ne dañ lay ber rek ber rek ber rek buur boobu dina dafa fekk ba nga defe ne yow rek la bindoon yow rek da ngay defee ne yow rek la bindoon kon nag waxoon naa bu yàgg ne nu bàyyi sunu xel ne dina nu gental am déet waaw dañuy dëkk ci kaw suuf as as ndiir as ndiir as ndiir tasxiir la ak koy jur yàgg dañuy dëkk ci kaw suuf as ndiir as ndiir as ndiir ku wóor na di nga jege ku nga gëmloo foog ne mën na la ca dimbale ci wéttal loola bari kon dimbalal yàlla la am déet te amul dara dara luy dem foofa dara dara du fa dem lu dul jëf ji yiw ket kenn gisagul ko dee ñu boole ko jabaram sunu day def ci kër gi toog li fan yu ko yàlla toog loo woon geneen góor jël ko bu amee saaf mën naa doon sax sa noon ko ko jël yow nga dem kenn deegul it ñu yóbbuwaale la sam taax suulaale la nga am banque ba sax say mbokk balaa cee jot dañuy xawaat dee waxuma yow mbubb yi ñeneen jël lal yi ñeneen tëdd leen nañ la nga yóbbu nag bàyyi ko xel teel bu xel mu ñaaw te lii kat ci la nii ngeen def ci la am bés nga dog sa bakken ne ko doo nelaw tey ñun laaj la lu xew nga ne nër yi la ñuy way jàppati ci sa wërsëg ñu ne foo ko jëme nga ne feyoo jiwuma ko bor mayewuma ko ngoro Moustapha tax te fii ku fi ñëw tey gis lu buur bët am déet ku fi ñëw gis lu buur bët boo xoolee soo dégloo dégg lu fees nopp dal dell boo ji ginnaawee loolu soo tax borom Tuubaa la ñëw joxe fii addiya borom Tuubaa laa wax ku yaakaar borom Tuubaa laa wax ñu dem joxe parce que borom Tuubaa laa wax ñu dem joxe fii bu taxaw fii rek sa loxo jagewul ala ji bu jaaxo yéen Tuubaa bi jaay Muhammad walillaahu xayrul aalamiin Muhammad Muhammad Abdallah Abdallah nga ngay ba taalim محمد الامين ابيض لوني والله ما في الارض والسماء كفلا مدى من الاشياء ودر ودخل خوف المسماء امام الارميني بلا لم ياتي ولا ياتي مثل عبد الله في الحياه ممدد عليك علي ما خفت تغنيلا على خلمي سرى وما دموني سام من تيمي نعم الأرميني خادم الرسول ما وخ وخ بيت دفق جنبالتي bilaa lam yaati wala yaati ba maawlan xaadim rasul lay bëgg a wax bilaa lam yaati wala yaati ba maawlan di bi mu laata wax dafa giñ jiital sa ngiñ am na lu ci ne bilaa lam yaati wala yaati ndoon ma teeri ngeen araf yi ñuy giñe ñetti araf la bilaa lam yaati wala yaati ba maawlan ñett kilifa giñ na ci yoo xam ne kenn du wax caaxaan. laa ilam yaati wala yaati njol ma teelin. waaw la ñuy giñee. bi laa ilam yaati wala yaati. ak daa tombe la ñuy giñe mbaa waaw. bi laa ilam yaati wala yaati. wala baa wala taa. bi laa ilam yaati wala yaati. moom laa wulam. ñetti araf yooyu rek ci la ñuy giñ da ngay wax billahi. bi laa ilam yaati wala yaati. wala nga wax wallahi laa ilam yaati wala yaati ba maawlam maa nga wax tallahi laa ilam yaati wala yaati ba maawlam déglu leen rek nag ñetti kilifa yi ni ñu foore laa ilam yaati wala yaati ba maawlam de yi jël na waaw di jinci bilaahi lam yaati wala zaati bam laaw lam ci def ci ci pootaa tombe gi giñ ci bilaahi lam yaati wala zaati bam laaw lam ci ci def jël baa gi giñ ci bilaahi lam yaati wala zaati da zakali ngeen kenn ki si dahaaj maalik la moo giñ ci taa tombe gi xalaay maa xif su tax naa leen ala xadawi bam laaw lam kenn ki salaam ak sa wala zawi bam laaw lam kenn kis Mawlana Ahmad Bamba la bilaay lam yaati wala zaati bam laa wulam di moo giñ ci waaw gi wallaay maa fi adwa samaayi ndeysaan si adwa bi wax loolu wallaay maa fi adwa samaayi bam laa wulam di sax do abee jël waaw gi wallaay maa fi adwa samaayi sëñ Bamba jël lu baa gi wallaay maa fi la di wa samaay alaaji maa ngi jël saa tombe gi wallaay maa fi la di wa samaay kala na na billahi billahi lam yaati wala zaati kala na wallahi billahi lam yaati wala la yaati kama kana wallahi billahi lam yaati wala yaati ñoom ñëpp nag ngeen déglu li ñu giñee lan billahi lam yaati wala yaati déglu nag xaadim rasul lay jëkke billahi lam yaati wala yaati ne ne billahi giñ naa ci màggug yàlla billahi lam yaati wala yaati ba ma awlam ñu ne ko mooy pour mbàkk looy giñ ngiñ am na ay circonstance yi ne ci biir mun a xam naa billahi lam yaati wala yaati li ma laata giñ xam naa li giñ la moo. bilaay lam yaat wala zaati bam laaw la. maa ngi giñ it ci li ma dëgg ma lépp. bilaay lam yaat wala zaati imaamul adami. giñ naa la li ma ginnaawal lépp. bilaay lam yaati wala zaati njol ba keeli. boole naa lu ma si nar a ut bay laa yomal xëy. bilaay lam yaati wala zaati. dama ne lam yaati musul a juddu. bilaay lam yaati wala zaati. lam yaati musul a juddu lii ko dale ci fi mu koy waxee. ولد ياتي بس السماء آدم من في جك مسلو جد لم يات ولد ياتي مسلو جد مثل أحمد من نادى عليه لا ياتي مسلو جد اللي قدر في ما يوخي واخد من سيطوبة لا لم يات ولد ياتي بك ربي عليه وخمام آدم كنت رسول لم يات ولد ياتي diggante boobu laa ne mosu fee juddu misli ibn Abdullahi ibn Abdullahi la yaati ñu ne ko loolu leer na sa ginnaaw nag loo ci xam bilaay la jooju wala ila yaati mu ne wóor na ma ne bilaay wala sa yaati li du ma bay di la yaati li ko dale fii ma waxe man sëñ Tuuba bay la yaati wala yaati li mujjee juddu àddina tukki li ko fi dale ba foofa di la yaati wóor na ma ne lam yaati bi ci juddoo ti mukk lisum Abdalaay di la yaati lis na lim na Abdalaay kam doomi Abdalaay jaa lisum Abdalaay di la yaati comme sëñ Tuuba ne li ko dale fi mu juddoo ba ca sëñ ba ca maam Aadama nabi ku mel ni moom judduwul mislu Abdullahi li la yaati dafa dabbaare bay laa yomal xiyaam ku mel ni moom du judd muqaddam rasulul brahimi ridulu raati kamil islilun ak góor googu ni mu jeexe ci yàlla mu dasin musamin ak ni ko yàlla xëcce ci bopp ak ni ko dara ba ñu umte mu lëñtu wax wax boobu diñ teg ci door a départ kalimulahi te kat am na woy bu mu ci teg xaatimul anbiyaay xaatimu rusuli bi mu ko waxee ba noppi am na lu mu ca teg wallahi maa bi adwa قبل أجياله ولا أبالي سيلا كايه أنا قد قلت وخنا بخ بما وخ min xayri afraalin ci lu ndéey du nëbb dama ko wax bind ko wala ubaali te faale wu ma sabil inkaari ku ma contre mbaa ku ma wedd imam alxarama yow rasulul alamin hadu makaani moo leen gën du gën bu ndaw bari da ala dada dama awlam de moo leen gën du gën bu ndaw butulil arab wa daaru maadan wa daaru zay bataarin jal makayarin gën walaay sa walaay ma wadi wa samayi cheikh sada bay bëgg a wax ne walaay ma filard wa samayi bam la la sax su abee bëgg a wax déglu leen ko. walaay maa fi arri wa samaayi. sax su abee bëgg a wax déglu leen ko. walaay maa fi arri wa samaayi. sax su abee bëgg a wax déglu leen ko. مكتوب أبي سالم خاجل المختار سالم أبي سالم محمد ابن يحيى الشقيق سيد الآلي قد ديني مولى أبو بكر مولى يحيى عبد الرحمن أران أتلان أجملان إبراهيم المذوب ولا إمام في الأرض والسماء kookoo ngi juddoo ci néeg bu mag a mag a mag a mag a ما في الأرض والسماء borom alxuraan wax naag Moustapha te ca la bokk والله ما في الأرض والسماء daf ko ne yaa nisaa nabi lastunaka hadin min annisaa in ittaxaytunna fala taadaana bi qawli fa yatmacu alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macrufa wa xarna fi buyutikunna wala tabarajna tabaruj aljaahiliyati ule wa aqimna salaata wa atina sakata wa atina laa wa rasulu ne innama yuridi llahu li yastaba ankum rijasa yéen ahlal beyti wa yutaayirukum ta والعالمين ورسول العالمين هذا الجزائرين قد duggan gu ndaw laa la wax باقي من عالما بنبوتي رب لا ولم te soo daabee bëgg a wax lu baax والله ما في الأرض والسماء moo ci foo waaw gën a walaay ji ñàkk والله yàlla ما في الأرض والسماء رب لا borom ولم bi may na ma ba sama asamaan yi ba tax tasaraa والله ما في الأرض والسماء إمام الأرمين man dem naa ba arsa laa wax والله ما في الأرض والسماء رب لا ولم jaaruma faa bi yàkkamti visité والله naa ko ما في الأرض والسماء جل مكيلين bëtt naa géej gi ba mu daj visité naa ko والله ما في الأرض والسماء رب لا bëtt ولم naa suñu juróom-ñaar ba mu daj visité naa والله ما ko في الأرض والسماء
maa ngi leen di giñal yéen ñëpp ne والله ما في الأرض والسماء asamaan yi juróom-ñaar laa wax والله ما في الأرض والسماء رب لا ولم ak suuf yi juróom-ñaar boole naa ko والله ما في الأرض والسماء amu ci koo xam ne kii والله ما في الأرض والسماء amu ci koo xam ne kii كف على مدى من الأشياء bëtt naa suñu juróom-ñaar ba mu daj كف على مدى من الأشياء ma bëtt suuf yi juróom-ñaar ba mu daj كف على مدى من الأشياء visité naa fi ñu baax ak ñu bon كف على مدى من الأشياء maa ngi leen di giñal bi ma ñëwee résultat bi ma indi mooy maa fi sama yi nekku ci asamaan yi juróom-ñaar boole naa mu këri biina boole naa mu xëri biina boole naa wul asmi ñoom ñépp laa wax wa fi ardi nekku ci suuf yi juróom-ñaar ku fan benn nawle min al asiyaay ci yëf yëpp li amada ñeel ahmad am إمام الحرمين ورسول العالمين أهل المكان boo yàlla la yàlla yombalal wërsëg bi xay rasul lay أمة ممت moo joxe ñaar téeméer yooyu yàlla ko yàlla yombalal بدر ممت كدار ما تبان جاي محمد والمه خلال من محمد Seydina Ababakar jàkkoor naa noon ne bi na ko yaa gën ñëpp
أجد لو عند المكيال عند yow خيال nag moom ne ko yaa gën ñëpp yow ne bi أول ما
bu fekkoon nekk ne du ngor ngor lamboo mbaa yërmande فلو لحرمة خير خلق لا يسوس الجلاء أحمد دائر الدائر
nga xam bu fekkoon ne du ngor ngor lamboo mbaa ngëreem gon yow mii
يا سايات yow Moustapha yow lay wax si naa Babacar a ko ko wax ba cëg عجبنا لمن يرام يا خير العلم سل على المختار من آلهات سايات na ko yaa sut yaa sut ñëpp ñëpp boo sëggul woon kenn du la jot mu waay ndem
ولما عجبه ربه للمكان فعلت لدي أمات وزائمه سايات أبو خادم gudda nga gudda goo xam ne boo liisul woon kenn du la jot laa wax الذين حفظوا على الصيام سرم يغلق بابنا ليليام يرونهم لن ينفتوا في القبور وفي القيامة من المغنم كبير تايات billaahi tàng nga tàng goo xam ne boo féexluwul woon loxo du la laal كن جلت كنت كتدين البراق وتدين أسماء الجرم نار ومن سلم من تمام.
جبريل رفيقا مصمد من الجيل لما جاء هو ذاكر من المجد الأقصى إن نفس تالي آدمنا فتدلت تايات mu ne njool mag mu ne njool mag boo doon xaar sa nawle door a wax sa gémmiñ ngi yàqu te doo wax
يا فدمنت ضلع بسجن محمد فما ليس من بغل سميم وسودد لقد صدقت في مقالة منسد أنا الله أهل الأرض سرا بسيد سمك ياسين su fekkoon ne kenn sa doom yi balaa sëy sëy ak seen nawle kon du ñu sëy
ابن عبد الله عبد الله واي- بن عبد واي الله ندري.
بن عبد الله بن مناف جاد عن قال وبين البتات
daf ko ne yow ëpp ñëpp boo sëggul woon kenn du la jot
جنون على حبي حبيب سويتها حياة مجدي في الأولى تلوتها فقلت لكم لما عليكم جلوت أتى يا ياد ويل يوم وخر maa ngi yow yëpp day bari ci sama yëpp day bari ci sama xel.
te Moustapha laa la bëgg a wax yu ko Ababacar mi ko xam waxal.
xinal xinaa andu naw la sa del xinaa taaye aadin.
nee na ko yaa sut ñëpp boo sëggul woon kenn du la jot.
akad law an qad law laa tu jàllu di fa billahi xaaluuni xay bi ma sabi taaye aadin.
nee na ko boo doon lu ñuy laal tàng ne tàng goo xam ne boo féexluwul woon duñ la laal.
lafitu tabtu laxtartu junun ala nawa taaye aadin.
bu fekkoon balaa nga ubbi sa gémmiñ gi wax ak sa naw la doo wax bay laa yomal xiyaam.
قام نذيرا بالفراق خراب ونال على المسكين لنا بتراب
te doom yi boo ci doon xaal morom bi ñu sëy bay laa yomal xiyaam.
أمام لقاء الناس والسم كاد كقيت بقيد من الحديد لذا نكاد ولا تنسى ذكر الله في كل ساعة تايات
su fekkoon ne que ne balaa ngaa sëy sëyat sab nawle doo am jabar.
ومن نسوق خمر ساعة كتبت تحت في الباغ وسبحت ملائك سباق لسان سكري وسكري رفقا للحرس والكرسي نور وبغاء تايات waaw kay ña- ñaar ñi jiñoon ku ne wax nañu sa njiñ.
واو mu des nag Maulana Hadj Malick moo ci po woon taa tombe ji. déedéet déedéet déedéet du noonu de du noonu de du noonu de du noonu de. ñi jiñoon ku ne kii jëloon na waaw kii jël ba mu des El Hadj Malick moo ci po woon taa tombe ji.
daara yi daggal xol yi sakk bi njiit xam-xam bi waa ñu gëniw du jàngaani seetal ñi takk ci moom mbaa di guneem safi moom dagg na seen xol ya labloo sëri ci diina ko ci nuyu ni ko naam si juumuloo dafa naan ci xay bu yaas watun maas bu caafaan
Sidi Hadj Malick moo ci po taa tombe ji am na moom it lu mu giñ. waaw waaw Cheikh Seydou Abi moo jëloon waaw. ndeysaan.
kamilul lay kileelu mu dasir mu sam la balaay mooy bàyyi yonen salaay baax yu tam ila la aqarani xiyalaani mayin ba Alaaji Malick moom itam moo giñoon ci taatombe gi.
salaay baax yu tam xalaalami ba maa wuram Sëñ Tuuba moo jëloon baa gi.
salaay baax yu tam ila aqarani ba maa wuram Cheikh Seydou Abi jëloon waaw gi.
salaay baax yu tam ila aqarani ba Alaaji maa wuram Malick jël taatombe gi.
salaay baax yu tam ila aqarani moom it déglu leen li mu giñ ndax niroo naag li gaa yi gi.
salaay maam la mi salaay ba maa wuram kële noon na asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar.
salaay walaay bilaay salaay ba maa wuram kële noon na li dem ak li paase ku mel ni Mohamed amu ci.
salaay bilaay walaay moom la rëmëy ba Alaaji Malick itam am na lu mu giñ.
salaay bilaay walaay ba maa wulam moom daf ne tallaay maa xiftu suniyaan ala xasani
salaay xeedaal mi dafa wax ne tallaay salaay bilaay walaay moom la rëmëy ni dafa wax ne tallaay maa xiftu taaniran ala xasani salaay maa xasutan ala xasami xeedaal mi ok foofu la wax bi jeex tallaay maa xiftu suniran ala xasani salaay maa xasutan ala xasami xeedaal mi kooku moo tudd misraaw misraaw mooy genn wàlli way salaay maa xasutan ala xasami njol ma kiyaali Maodo aya def ne tallaay jiñ naa ca yàlla salaay maa xasutan ala xasami ba maa wulam tallaay giñ naa ci màggu buur yàlla ne salaay maa xasutan ala xasami xeedaal mi mbokk yeeg taalibe yi daw la nga amu ci ne ko doo ko fi gi ñu mukk mukk mukk salaay maa ngi lu tax ne ah xale mi xeer daal di mel ni.
ngiñ dafa am lu mu lamboo te foor naa bilaay talaay walaay talaay.
soo jiñee la nga giñ di dëgg bilaay talaay walaay talaay.
téere yi ne nañu giñ katab dëgg salaay maa ngi lu
guddal fan du bari wërsëg.
والله ما كنت تغلب على قدمي إمام العالمين kii jiñ dëgg laa wax kii jiñ te li mu jiñ di dëgg.
والله ما كنت تغلب على قدمي kii jiñ te li mu jiñ di dëgg laay wax.
والله ما كنت تغلب على قدمي kooku ne nañu du bari wërsëg du gudd fan.
والله ما كنت تغلب على قدمي
déggu leen yéen ñëpp perdal ngeen te maa ngi waxi wax.
والله ما كنت تغلب على قدمي dama ne kuy jiñ te li nga jiñ di dëgg doo gudd fan doo bari wërsëg ndéem dëgg la.
والله ما كنت تغلب على li قدمي ngay wax dëgg la fenn ku ci waaye nga faral toujours di jiñ di ko door a wax.
والله ما كنت تغلب على قدمي خير العالمين téere yi ne saw fan du gudd doo bari wërsëg.
والله ما كنت تغلب على قدمي جل مكيالين جل pour oyofal gi nga oyofal tur woowu di ko gaaw a am pour waaye.
والله ما كنت تغلب على قدمي خير العالمين am na gor yu ñu jiñ lu dul dëgg jiñ loo leen rey leen gënal leen tudd turu yàlla.
والله ما كنت تغلب على قدمي جل مكيالين جل li ngay jiñ nag bu dee fen ku la jëkk ca safara daf la jëkk a dee.
والله ما كنت تغلب على قدمي خير العالمين li nga jiñ bu dee fen ku la jëkk a safara daf la jëkk a dee.
والله ما كنت تغلب على قدمي خير العالمين moo tax ba El Hadj Malick ne tallaay ñu la ngaamu si ne du fi amee.
والله ما كنت تغلب على قدمي loo doon El Hadj Malick doo jiñ.
والله ما كنت تغلب على قدمي mu ne bàyyi leen ma bàyyi leen ma maa xistu ragal.
والله ما كنت تغلب على قدمي mu ne bàyyi leen ma bàyyi leen ma maa xistu ragaluma saa nii san dab dabaatal ala xasami ci li may giñ.
والله ما كنت تغلب على قدمي borom bi daf ne képp ku giñ te la nga giñ du dëgg am na lu la waar.
والله ما كنت تغلب على قدمي loolu la ñuy tuddee atanis.
والله ما كنت تغلب على قدمي قدمي بلا ولمدي borom bi daf ne képp ku giñ te la nga giñ du dëgg am na lu la waar.
والله ما كنت تغلب على قدمي loolu la ñuy tuddee atanis.
والله ما كنت تغلب على قدمي yàlla la ko yàlla yombalal yombalal ku jullit yëpp di jaay rasulillahi.
والله ما كنت تغلب على قدمي قال ما كيالين قال gisal article bu ne ci alquran والله ما كنت تغلب بلا ولمدي ñëw dal ci atte atte ba na mu ko santaane lañ koy doxale والله ما كنت تغلب على قدمي قال علميني dafa am benn waay bu xëy giñ ci jabaram ne ko suma la xamatee xam sama ndey booba nebee ngi dund jabar ji ñëw nettali ko Moustapha yàlla waxagu ci benn article nebi li ngeen lëf la ngir màgg ko way jur ne ko kon sa jabar araam na la sa jëkkër araam na la ndaw sa dem ba kër ga toog xalaat boppam tiit dellu si na ko Moustapha seetal ma bu baax sama jëkkër bëgg naa ko lool te jeexal naa sama ndaw ci moom nebi na ko araam na la mu dellu kër ga toog tuuti dellu siwaat na ko ma gis la nebi jóg mu ne ko dañuy jaboot te samay lex daanu na góor bëgg tuma te mënumaa dundal njaboot gi seetal ma bu baax nebi na ko araam na la yoon wu ci ne nag mu ngi ko fekk mu toog ak jabaram di ñu xaaji fit bu ñëwee rek nebi jóg wax ak moom delluwaat toog troisième voyage wa ba nebi quitté ndaw sa di dellu si ci jabar gi jabar gi daf ko xool gis kanam gi changé bu alxuraan daan bëgg a ñëw kanam gi dafa changé mu gis kanam gi changé mu xam ne ndaw sa soxlaa ko fi indi te léegi yàlla wax ay surtout fudd na ko ma ñëw dab ndaw si ne ko bëgguma xam sa secret xaama it looy laaj waaye léegi nga am ton kanam gii ma gis bu ma see mel mel ni gii léegi yàlla ton ay surtout ne na li ma doon lee tax a gëm yàlla aaya jooju ci la fi ne bi doon déyeeg ndaw si matul dix mètres dégguma li ñu wax ndeke yàlla dégg na ko ci asamaan juróom-ñaar ba répondre naka laa naka laa si rek dab ndaw si wax ko loolu ne ko léegi nga am lu leer dellu si rek ne dina mindel miir na jaayaat ndaanu mu sàng koy mbàjjam mu am minute de mbàjjama ne bërit mu ñoril ko mbàjjama mu génne wàlla ñàkk yuy niroog jamaa ci kanam mu ne pàcc moon ne dabal leen ma ndaw si ñu dab ko yàlla tontu ne laqad sami allahu xawla lati tujadiluka fi sawjaha wa tastaki ila allah wallahu yasmau taabarakuma inna allah samiun basir إمام الحرمين ورسول الله الميلاد المكيالين قال waaw waaw waaw waaw waaw waaw du ngeen ko ndaw وما مقام كل مقام بلا ولمدي waaw waaw waaw du ngeen ko وصلوا ndaw على الأنبياء المأجلين جل مكيالين قال du ngeen ko ndaw de خير بني بل الأدنان خير البطول العرب وأمدالهم أحد طالع ما قد تقدر على قلمي لا تنسى.
إمام أرميني buur yàlla daf ko ne la xad na samia laam di laamu ngiñ la xat ji xatuk taxqiiq la taxqiiq mooy loo xam ne li mu lay wax wér na la yàlla giñ boole ci na la xad na samia billaahi dégg na ku dégg laawu yàlla lu mu dégg xaw na la ciy waxi ndaw si nga xam ne tusaadilu ko mu ngay répondre anteeg yow fii sëw si xaa ci mbiri jëkkëram wa tëstakii te muy tawat néew doole ilallahi jëme ko ca yàlla wallaahu yàlla yes ma o dégg na taxaawuru kuma seen waxante gi xamulee ne ina laa naka yàlla samiun borom ab dégg la ci dul nopp basiirun borom ab gis-gis من نبي ولا رسول إلى خلق من ذي سلعة البيخ الأرميني dal dina Mohamed buum ga nag affaire bi demewul noonu ma wax la léegi li ci war
فوزنوا بملا ولمدي ne ko inna lasina yusaharuuna min nisaihim ma hunna ummatuhum in ummatuhum ilallah walatnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa huwa wa anna la ghafur فوزنوا خلال بعيني waaw وكل مبروب لك ولا بملا ولمدي yàlla ne na inna lasina jëkkër yi nga xam ne yusaharuuna dinañu nirale seeni jabar ñu di ko nirale ummatuhum seen ndey yi maawun na déet seen jabar yooyu ummatuhum di mën a doon seen ndey ah ah inni ummatuhum déet seen ndey ya ilal li dara jigéen ñi nga xam ne ñoo leen ëmboon wa juur leen innahum naka jëkkër yooyu daal la yàqoona dañuy wax rek mun karan wax ju ñaaw wa sooran ak i fen tasul sëy nag ina laa naka yàlla la afowun jéggalaa kat la xafoorun ju di baalaa koon kon ku ci waxati sa jabar wax boobu ci kilifa nekk fa ni ci kilifa teg loxo may la dale quatre mois bu quatre mois yi jeexee te ñëwul a fàyyile sa jabar ñu door laa wax loo nar su jeexul nga wéeg sa jabar séeg moom nga nga nga goreel jaam mbaa nga or ñetti weer mbaa boog nga leel juróom benn fukki mbiskin door a laal ndaw si article ba dal nag ne ko loolu du dara ku ko ci wax da ngay fet waaye ku ko ci wax bëgg koo miim am na lu la war looloo tudd nag taxniis loolu la alaaji Malik ne du ma dal yàlla ne inna la seen a jëkkër yi nga xam ne yu haroona dinañu nirale seen jabar ak seen ndey dem ba mu yàgg su ma yóodoona ñu rikkile arrière nag bëgg a tëddaat ak ndaw sa fa noonu du ma tëddaat ak ñoom fa tahriru raqabati nañ goreel jaam nañ goreel jaam nañ ko def min qable an yatanaasa avant ñu def benn amour waxuma kat ne dinaa ko def nañ ko def nañ ko def min qable an yatanaasa laa la laal lii rek balaa ñu ko def na jaam bi gore fay ndem yi jit ndem amuñu jaam bu ñu joxe fa siyaamu nañu oor saxray ni ñaari weer mutatabbi ay ni ñoo bokk min xabli an yatanaasa balaa ñoo toog sax waxuma ak bisi suñu ko amul fa itaamu sikkiina miskiina nañ leel juróom benn fukki miskin soixante personnes nga jox leen ba ku nekk suur xam naa cinquante kilo lay doon mbaa trente kilo bu ñu bëggul lekk lool ci yoon nag loolu mooy mooy tax ni loolu la ñu ragaloon alaaji Malik mu ne du ma dal parce que li may wax dëgg la bu fekkee ne nag wax nga affaire ñetti yëf yooyu yëpp yoon teg la ko foog nga goreel jaam mbaa boog nga or ay fan mbaa boog nga jox ay nit ñu suur ñetti yëpp nga mën ko mën nga or lool am nga jaam boo goreel am nga itam loo mën a jox juróom benn fukki nit xam nga bu ci ëpp a yool joxe lekk wee ëpp a yool waaw boo koy dégg da ngay foog na koor gi ëpp yool ëppul yool joxe lekk bi ëpp yool xam nga buy déesim goreel jàmbee déesim xam nga buy troisième or door a ñëw pourquoi xam nga lu tax loolu moo di koor gi yow rek la jëriñ yow donga or yaa am sa yool yow kenn moo tax muy daree li tax kële di déesim mooy jaruñu nga ci jàm biñ ko goreel jariñ lu tax ba ne ëpp doole mooy juróom benn fukki ponkal rek na nga dooroo boole ci njëriñ kon juróom benn fukk jëriñu na nga jëriñu moo ëpp doole crédit deuxième kii bi troisième sur que ayoo affaire yooyu lañ doon bañal alaaji Malik mu ne bu seetaan leen ma rek man naa xibtu ragaluma ta ni si benn responsable bu ma dal alaakasami ci li may ji ñu ne kon ñu déglu loo wax mu ne dama ne sarwaawu doom ji mel ni Moustapha laa maa dam moo dootu ko ëmb mukk asdaafu jabar min sëyam yi jële ko ci jëkkër bay laa yomal xiyaam
يضم ما ابنك لم يكن
moom laa leen indil tey ak Kidali